la am Sweet Beauté daal di jiboon mu dib dossier boo xam ni njiital Pastef jëloon ñetteelu place bi ci élection présidentielle batum 2019 daal dinañ ko jiiñoon viol ak menace de mort la ko def di ab masseuse buy woo ci Toura ji saar waaye ca bis boobee la ko Ousmane Sonko daal di weddi jaareele ko ci ab post Facebook ci ëllëg sa jaare ko ci ab conférence de presse bu mu amal ca këram fii ci Ndakaaru daal di ci xamle ni dafa amub jàngoro bu ko taxoon loolee tax mu jàpp ni lii ab complot képp la ba sax daal di woote ab mortal combat juróom-ñetti fan ci weeru février atum 2021 Ousmane Sonko daal dinañ ko convoqué fële ci gendarmerie waaye mu lànk ni du dem biral li nga xam ni moo di mbalaanu kiiraayam moo di mbalaanu kiiraay boo xam ni daal dinañ ko yëkkati ay bés ci ginnaaw ca pencum ndawum réew ma ginnaaw ab bi subtention ca mujjantal ga ñetti fan ci weeru mars atum 2021 lañ jiital Pastef daal di génn këram ngir wuy ji fële ca palais de justice bu Ndakaaru laata ñu koy teg loxo te ko daanaka juróom benni juróom benni fan xam ni réew mi daal na ci yëngu ak i manifester yoo xam ni fukk ak ñeenti bakkan daañ ci rodd ay téeméer jële ci gaañu gaañu ak i yàkkute yu jéggi dayo loole tax ñu daal di teggi loxo kii di njiital Pastef les Patriotes daal di koy placé sous contrôle judiciaire. ci diggante gi yoon daal dina woo ñu bëri laale ci mbir mi bokk na ci Adji Sarr ak Ousmane Sonko ginnaaw procès bi daal dinañ ko a fukki fan ak juróom benn ci weeru mai atum 2023 ay weer watum 2024 parti Pastef jàpp ni lile lay mbébétam moo di rek éliminer seen candidat ci course bile waaye bi yoon itam ko lank ni du wuy ji benn yoon maire bu Ziguinchor bile fa yéene toog ca këram foofee ca Ziguinchor tax ñuy xaarandi ay yëngu-yëngu ci réew mi